ak moom fii ci palais ànd ak euh, moom tey fii ci palais lépp rek euh, ngir le président Macky Sall li nga xam ne lañ honoré Lions yi tey euh, ñu ko bari dafa ñëw final keroog bi ñëw final muy jig ñu trop nag vraiment mu gagné ñëw ñu gagné final bi vraiment muy ku ñu jig keroog dafa tur rongoñ sax parce que moom Baye Fall la day daan triché dafa tur rongoñ keroog ndeysaan macha allah maam góor ak uh, ki nga xam ne mooy wàllu balance rek ñu ngi doon di caxabante lii mooy Sénégal c'est le vif lii mooy Sénégal lii mooy Sénégal ndeysaan wàllu balance ndeysaan ci maam góor ñu ngi taxaw maa ngi ak maam góor ñu ngi taxaw ndeysaan macha allah jaajëf grand jaar naa la may wàllu jaar kenn du moom waaw ñu ngi doon taxaw léegi wàllu balance maam góor di tàggal ñu ngi doon taxaw ba li nga xam ne mooy ba léegi rek mais ñaabu président ah, ñaabu doomu Sénégal kenn yow Thank you. ñëw keroog final ba muy le Faramareen de Faramareen Wally Ballago Seck le centre du peuple le choix du peuple keroog bi mu ñëwee final ba li ci lañ jël coupe bi ci lañ finalu jël coupe bi ba léegi de Thank you. ñaaxar ñoo mu ngi noonu ñaaxar ñoo ko xam-xam waaw Maître El Hadji Diouf noonu ak Cheikh Gadiaga Maître El Hadji Diouf ak Cheikh Gadiaga ñëw ci Wally Ballago Seck ci ay doomam ci doomam ci rakam Cheikh Gadiaga ak Maître El Hadji Diouf ñu ngi noonu Cheikh Gadiaga ak Maître El Hadji Diouf ñu ngi noonu ndeysaan macha allah ndeysaan le doyen mu ngi noonu macha allah mu ngi nuyu doomam mu ngi nuyu Wally Ballago Seck ak ñaar ne mooy Thiandoum Balma grand grand wut këni la Cheikh Gadiaga ak noonu ndeysaan di wax ak Wally Ballago Seck mu ngi noonu ba léegi rek ndeysaan le programme le programme le tandem du peuple le soir du peuple mu ngi nii musique Sénégal Sénégal. Le centre du peuple, le soir du peuple. Le centre du peuple, le soir du peuple, Wally Ballago Seck. Maintenant, mais Baye Fall bi. yow fekk yow. ñaaxara ña. ay eh, ña. wóor. ña ña. wóor wóor. Baye Fall baa ngi nii de barke Cheikh Rafal Baye Fall baa ngi nii de coupe bi yow yaa xam ne yow yow yaa ñëw final ñu gagné waaw moom moo ñëw final ñu gagné barke Sëñ Sadio Baye Fall yow yaa ñëw final ñu gagné ndeysaan Sénégal yow yaay Sénégal barki sëñ Saliou dara Sénégal lii la eh kii moo ñu gudd de boo ñëw final ñu gagné barki Géramal non parti la yaa bi nay le centre du peuple le choix du peuple mu ngi nii askan bee ko wax adduna ko wax te parlement na ko dégg mu ngi nii barke Serigne Bamba nangu jar na ceeru bañ Beña jox ma ci ruus yi fop Beña Beña ma ci